demam nga umpuna mindéef te um na boppub kuy mindéef kudul malaaka ya ko wuuf ak yàlla ak ñamu ko wax yoneen ba ak ënglu badar yori mbiram di ko defar moo tax xamee su lu wér demiinu yoneen la ko jox la dala njurbal ba këram malaaka ya sappe ni gorom di ko bijjanti di gërëm te di ko sabbaal di ko jox way deeye jokk woon fa moom nekk bar sàkk ne xéem lim nu njëkk a wax mooy na ngeen dem ñi ci waa kër sëñ Tuubaa waxtaan ak ñoom ndax bis bi seen bis la fii nag moom day day kër sëñ Tuubaa ndax ku ne xam ne ki moom kër gi ak li mu bokk ak sëriñ Tuubaa ndey ak baay te ndey ak baay moom daa for kon nag lépp lu ñuy def sëriñ Tuubaa kenn war leen caa jiitu luñ cay waxtaan itam war nañoo ñëw ba ci yéen waxtaan ci ak yéen ndax xalaat biñ ci am ak ndigal lañ ciy doxee ak ndigalu sëñ mu taxaa noonu lañ koy jàppe kon nag yow mi fi toogal suñ maam Mamoor Jaara yow lañ ñëw di la yëgal si bis bi sëñ Ahmadou Maxtaar loolu la wax loolu daal mooy tànk yi jëmmal bis bi centenaire bi mu amaat beneen dimension boo xam ni képp ku ko gis tam na nga xam ne màggalu Daaru Xuloos waaye bokkut ak màgg yi fi daa am ndax téeméeraat moom du lu ñuy feet lu bari ku ko feet benn yoon yàlla mën naa def doo ko fekkee fekkewaat kon nag bis bi day bisu Sëriñ Tuubaa kon ku bokk ak Sëriñ Tuubaa rek ci bis bi nga bokk loolu daal mooy sunu sunu tànk fii ci kër gi eh, li ci war lépp nag ak leeral gi naa ko jox Basiru ñaan mu mu gën la koo leeral bu baax a baax incha allah soloy ñëw gi ak uh, yëlla ji ak ndigal li nga xam ne moo jóge ci sëñ Muntaxa ñëw ci sëriñ Ahmadou Mokhtar barab bi itam la sëñ bi waxoon ñu njëkke fi ndax ni ko sëriñ sëñ Cheikh Aziz waxee léegi mooy ni sëriñ bi demee ak uh, sëriñ Mamor Diarra bokk lépp ak fi ko sëriñ bi tegoon itam loolu itam sëñ bi di ko dundal xamoon tamit diggante sëñ Mor Diarra ak Cheikh Mamadou Moustapha ndax ci loxoom la nekkoon euh, bis bi nag niñ ko waxee moo di téeméeri at yi sëñ bi ñibbisee Touba muy 1346 ci Égir di wam sa sin ba 1446 euh, ci atum gàddaay gi muy téeméeri at ndax at moomu ci la sëñ bi daan bind at yooyu la daan bind weer yooyu tamit ci la daan bind loolu nag sëñ Axma gisoon ne bis la boo xam ne bi sëñ bi ñibbisee Touba ba mu am téeméeri at bàyyi njaboot bàyyi itam ay kilifa yoo xam ne da leen defar war nañoo taxaw nag jàngat téeméeri at yooyu li ci yoonu murid def gannaaw sëriñ bi ngir wane ne sëriñ bi kat bi mu fi bàyyee li mu fi bàyyi woon ñi ko bàyyee ñenn ñu nekk def nañ ci lañ ci war a def muy doom yi muy ay mbokkam muy seex si muy ñëpp rek muy taalibe yi wane na yoon wi lii la ci def ci domaine yu bari nag ci wàllu njàngale ci wàllu boole jullit ñu doon benn ci wàllu euh, économie ci lum doon rek ñu wane ne lii ak ak dëkku Touba tamit bi fi sëñ bi daataan ñëw ak bi mu fi ñëwee ba léegi li ci yokku loolu lépp ci gannaaw sëriñ bi la ci téeméeri yi la euh, ñu bëgg cee def nag ay ndaje yu wuute balaa màggal gee ñëw ndax bëgg nañ koo ubbee fële ca ndakaaru ca Masalik ci fukki fan ak ñaar ci weeru tubaab yi ñu jëm incha allahu wala fukki fan ñett ci weeru tubaab yu ñu jëm lañ koy ubbee ca Masalik foofu itam des na fa def waxtaan yu bëree bëri yu wuute ci doxinu yoon wi gannaaw sëriñ bi ci ay te borom xam-xam yoo xam ne eh, jógewuñ daaru xudus waaye dañ leen a eh, boole ci yoon wi borom xam-xam yi fi nekk yëpp eh, ngir ñu waxtaan ci ci lu demee noonu. Euh, bu ñu fa jógee itam danañ dem Louga ci fukki fan ak juróom ci weer maanaam fukki fan ak ñett la fa ba fukki fan ak juróom ci Louga moom itam des na fa waxtaan ci benn ak ñi ak euh, li ci yoonu murit liggéey euh, gannaaw sëriñ bi bu fa jógee itam dinañ ñëw njaareem ci ñaar fukki fan ci mois de juillet boobu nga xam ne ñaar fukki fan ak juróom-benn mooy doon màggal gi foofa itam danañ fa waxtaan ci xutbatu wam sa sin maanaam dénkaanib sëriñ bi mujj la ca nekk ci ay jàngat. ñu jàngat ko ak ñëw sëñ bi euh, Touba ndax loolu itam dafa doon loo xam ne euh, dafa mat a leeral ndax euh, ak bëggama woon te dafa am lu mu ca ajoon itam kon loolu itam nam demee lépp des na ko waxtaane waxtaane itam dëkkub Touba bi fi sëñ bi daataan ñëw ak bi mu fi ñëwee ba suñ jonn yàlla tey ni mu soppi ko ci ci wet yëpp ci wàllu dëkkin wi ci wàllu njàngale mi ci wàllu yëpp daal loolu bu ñu màggalee ba ca suba sa nag eh, li ñu waxtaanee woon ci ñetti dëkk yooyu yëpp danañ ko tënk def benn cérémonie religieuse ci màggalu Daaru ba ca suba sa eh, kilifa yëpp teew ñu ñu mën a tënk nag loolu xam le ne daal yoon wi gannaaw bi fi sëñ bi jógee ba léegi ñu ko fi wuutu ñëpp la dala ci sëñ Modou Moussa sëñ Fallou sëñ eh, Abdoul Ahad ba ci sëriñ Mountakha mii fi ne kenn ku nekk li nga ci def ci domaine yu wuute. loolu daal la sëñ boo xam ne nañ njëkke fii ñëw yëgal leen ko euh, sàkku ci itam seenu ñaan ak seenu taxawu ndax euh, euh, loolu mu mu woote dafa gis ne moomu ko moom dong yoon wépp ko bokk kenn ku nekk am na loo ci def am na loo ci participer loole nag kon bu koy def war naa dem ci ku nekk yëgal la ko sàkku ci sa ñaan sàkku ci say taxawaay ngir bu sottee doon loo xam ne nii njariñ rek lay doon ngir yoon wi te dana doon tamit bu boobaa ngërëm loo xam ne day jóge ci sëriñ bi ci tënk daal loolu mooy li nga xam ne moom moo taxoon sëriñ bi yebal fi kilifa yi boole na ak ñoom ngir ñu ñëw leeral leen ko di sant bu baax nag ci taxawaay yi wasalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum wa rahmatullah ci turu sëriñ bi sëriñ Cheikh ak njabootu gépp ñu ngi leen di nuyu di nuyu sëriñ Cheikh Abdoul Aziz sunu wala réew yàgg ak ñu àndal ñëpp kenn ku nekk ci ñu seq moom lu yàgg. leen nuyu ci turu sëriñ bi ak turu njaboot gépp leen dalal leen sant bu baax ci xalaat bi ak ci jéego yi ak ci cër bi ndax xalaat bi eh, lu sotti rek ak lu fi am rek sëñ kon bu ñu koy defal ñëw fii boole la ca alhamdulilah rabbi alamin waaye loola it li ko sëñ Cheikh waxe léegi borom bis bi dafa séddoon boroom kër gi cër lool lépp lu mu daan def bala koo jëmee kaw dana ñëw ba ci moom laaj ko ci xalaatam ne ko li nangam nangam lañu war a def door ko jëmee kaw eh, njabootu sëñ Tuubaa it noonu la ñu doxoon ak xanaa lu ci bari ci njabootu sëriñ bi jaaroon nañ ci loxoom ci ndigalu sëriñ bi kon buñ delloo loola ne taxawal lañ bis jógee mu Muntaxa ñëw fii da delloo cosaan rek la amoon rek lañ yeesal kon nag yëg na ko bu baax dégg na ko jàpp na ko nit nag mu ne damay taxawal mbir boole naa la ca kooku wàcc na la ca des kon ci moom la te jàpp naa moom lay des du des ci moom ndax njaboot gi li ci ëpp nag teewe nañ ko fii ci dafa amoon xewu fi amoon ndaje mu waroon def mu tombe ci ñu bari yëgandoo nañ ko kon nag mi ngi leen dana ko ànd ak yéen ci wet gu ne ci ko waxee ci xalaat ci luñ fuñ ko soxlaa ak nuñ ko soxlaa ak cib taxawaay ci ñaan ba mu àgg sëñ bu sooy mi mooy buntam ci wet googu ndax yéen ngi jokko ba ñëw fii fuñ ci toll fa soxlaa ku fa su ko yëgee mm, doy na yëpp dañ ko yëg dañ ko ànd ak yéen ci tàmbali gi ba ba ca mujj ga ak fuñ ko mën a defee eh, mu doon loo xam ne jort na ne kenn ku ne rek war ngaa mën a delloo njukkal sëriñ bi lu mu néew néew ndax féetal na sa bopp féete la say soxla féete si yitt yoo xam ne mënoo mënaloo ko sa bopp kon nag te sëñ bi la ñu wooteel wooteeluñ keneen kon nag soob soobee yàlla dañ ko ànd ak ci lepp ak njaboot gépp ñaan nag sunu borom def muy sëñ bi nangu ko li sëñ Muntaxa di wax rek nan nan nan dajee ngërëmu sëñ bi ci la lépp ne dañ xasee am ngërëmu sëriñ bi rek ci ngërëm sunu borom nekk te ngërëm sunu borom kuy dox ci kaw suuf moom nga bëgg ku fi jógee moom nga bëgg te aw yoon la woo xam ne ko jaar boo ko wàccut da nga ci da ci am ngërëm kon nag yàlla na ci yàlla dajale ngërëm ak tawfiix dinaa sëñ barke sëñ Tuubaa demam nga ump na mindeef te um na bopp kuy mindeef ku dul malaaka ya ko wóof ak yàlla ak ñamu ko wax yoneen ba ak ënglu badar yori mbiram di ko defar moo tax xamee su ca lu wér demiinu yoneen la ko jox la dala njurbal ba këram malaaka ya sappe ni gorom di ko bijjanti di gërëm te di ko sabbaal di ko jox way deeye jokk woon fa moom te nekk bar sàkk ne xiim